dama doon nuyu la sëñ bi rek ginnaaw dañu fee yendu suñu affaire mm, ko ñu nuyu bu baax ñii fi daje nag mooy ñi nga xam ne yeneen i dayoo lañ bokk baaxoo na ñun liggéey bi ñoom ñëpp nag su Magal Tuubaa jotee comme ni ñu ko defee ci événement yëpp lañ ko defee rawatina biir màggal gi nga xam ne kenn dootu si wax dara dañu sukkandiku rek ne ci doon dayoo Moukhaddamatoul Khidma kenn dootu sol sa bopp dara. ànd ak ñun ngir jëmmi sëriñ Tuubaa waajal màgg itam donte màgg ga yaxanaat tey la tey la juróom-ñett fañ juróom-ñett ngir bëgg yi fi gën a yéwén rek moo ñu teel koo def ndax daan def at mi juusee ndax jekk daan def benn jataay boo xam ne dañ daan def ngir wa waxtaan la joon ci biir màggal gi waxtaan lépp ci benn point par point ba déggoo ci lépp luy rëq-rëq lu jafe-jafe ak luy tax liggéey bi gën a yéwén ñoom ñëpp nag kenn desul kenn ku ne mbooloo bi ñu ko xoolee li fi teew war naa mat fukki mbooloo ak ñett ci ay barab yu bari yu wuute waaye nag liñ ci gën a nag mooy nekk gi ñu nekk benn bennoo ci biir liggéey bi lool nga xam ne bu heure set jotee setal dañu taxaw ñoom ñëpp àndoo bala jumaa ji ba mu set biir màggal li metti metti daañ ko bal nettoyé bu dee ci bitig yi tam nga xam ne ni ko suñu seeb digle woon luy njaay niñ ko def ci lu màggal noonu def biir màggal màggal mi xat-xat daañu daañu may nag ak ah, ah, yolomal ndax bis bi waxtu ndax jamono jooju moo ko laaj ndax ci màggal nekk du ñàkk am ñu soxla woo naan wala lekk te dëkkuñ ca xëy na xaw nañoo sonn ñu ko defee dañ leen may ñi nga xam dañuy jaay di romb di jaay di dem waaye du nangu kenn ku fix ndare muy ko xam ne am place ubbi ko biir kër waaye budul kenn ku ne da ngay jaay waaye doo sañ teg benn place walla ngay lal fenn di fa amul biir yooyu yëpp ñu àndandoo di ko defandoo ci wàllu siyaar itam barab bu mag bi ak barab yi nga xam ñu ci biir penc bi ñun ñootu noonu ci taxawee yu yëpp rek lañu ma àndandoo di ko taxaw ba nga xam ne la fa seen bopp dañ ko def donte nag ñu sant yàlla bu baax a baax julli ci bi yonentam sallallahu alayhi wa sallam sant Ahmadu Xadim lu yaatu yaatu sant ndax jëpp jaar na ci diggante bi waxtu yi daaw la woon yàlla déggandi ñu fi waxtu ren fekkaat ñu fi pas-pas bi dolle ko ba ñu dajewaat ngir Ahmadul Xaddim kon loolu ak cant mënu koo weesu euh, sémb nañu am yéene jëf te seereel ko sëñ bi wax naa léegi ne leen maanaam am na ab liggéey bu fa yeggee day wara ne dëgg la ndax ay fani fan ngay ñukk di dukkat ñaq di xiif ak a mar ak a gëmmantu te sañoo dellu gannaaw la nga waxoon ne maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la waxoon loolu da leen a dal as yi jébbalu ndax lu metti metti xam ne yaa ko waxoon waaye loola bu tegoo ci lii ñu leen tànn fii ñu leen tànn di leen fi liggéeyloowe lu metti metti ak jant lañ ko war a def ndax barab bi ni nga koy waxee jamono ju ne kenn defu ko lu defu fi loo xam ne sa coobare bopp la lépp lu fi waaye def namm borom barab bi la moo ko moo la tànnal boppam kon ñu ngi lay jaar bu baax a baax xam ne mboole seen ñi fi teew ñoom ñëpp ñoo am yéene yi ànd ak Muxaddamatul ma la ma doon wax nag démb ak bërki rek laa lay waxaat bu boo amoon yéene ju yaatoo yaatu te ñii nga bàyyi sa gannaaw am aw des liggéey bi sàllaa fii mu yegg du fa yegg ndax bu boobaa mënoo nekk fépp waaye ñoo la wuutu fépp te mat sëkk loolu wér lu wér la ñoo la wuutu fépp te mat sëkk kon ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi leen di sant bu baax a baax te la ko seedeel xam ne mat nañu sëkk li nga leen bàyyee waaw mat nañu sëkk li nga leen bàyyee kon euh, mboole seen ñëpp du jar may lim ñi fi teew ñëpp daal seen yéene mooy ñu wànd bés bi euh, màggal gi màggalu Ahmadul Xadiim gi def ci lu ñu man ak lu ñu mënut te sallaa du tax ñu mukk ñu yegg ci xàq jawaat suñu diggante ak moom waaye mm, pas-pas bi ak bëgg geeg jublu gi luñ ci def doyut te luñ ci defit xeeb nañ ko ñu lay ziar bu baax a baax a baax te ñaan yàlla gën la fee dégg gën la fee bàyyi lool lool lool benn li nga yéene jaam ñii nga teg ci sa bët ñu nit li ñu yéene ci yow ñu teg ci suñu bët ndax wér nañu cëng ne yaay suñu cëslaay yaay suñu ndimbal wér na yaay suñu cëslaay yaay suñu ndimbal kon sant bu ñu ngi sant baax tey gërëm tey ñaan yàlla fekk la suñu yéene ci ñun bi jaay Cheikhul Khadim salaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen di ko ndokkeel di ko ziare di ko sant di wax ni lii moom sëriñ bi rek ko man mbooloo yu wuute bàyyi ko ci barab yu wuute ku nekk amoon xalaat yu wuute waaye biñ dikkee ba ci barab yi ku nekk bay say xalaat dëppooroo ci xalaat mbo ci xalaatu mbooloo mi di ci seeni waaw di ci seeni xalaat mel ni amu woon xalaat loolu yéene ju rafet ak fa seen liggéey sëñ bi donc moo ko moo moo moo moo ko mën a maye ndax ku nekk amu nga xalaat yoo xam ne jàpp nga ni mooy dox waaye ba nga xasee dikk da ngaa teg sa xalaat sa xalaat fële rek ci li la ma di sant loolu mooy àddina indiwul la fi dara noo fexe ba liggéey sëñ Tuubaa rek la fi indi kon da ngay fexe rek ba noo ba noo ko mën a noo ko mën xam nañ ne boroomi xel ngeen boroomi xalaat ngeen tëruñu ay mbooloo mbooloo ma xëy na amoon ay sar amoon nu mu xaate liggéeyee waaye lépp da ko teg ci waaye nag loolu mooy bokk yéene te li am solo rek mooy liggéey sëñ bi am solo ak nu ko mën a liggéeyee moom donte ne jar nu fay sax waaye nag nañ ko liggéeyal rek loolu mooy li ngeen def bàyyi seen xaalis bàyyi seen lépp waaye kon ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi ku nekk mu tëbb la kàttan ba la nga tële ak la nga tëlewul lépp mu fay téléphone te ni ngeen fi ngeen yéene ak yóbbu liggéey bi yëpp mu jàppale ba ngeen ba ngeen ba ngeen yóbbu ko fa ndax ku ne xam na ne kenn ku nekk ci yéen da doon mooy dara du sooxee fenn ndax li ngeen di li ngeen di doxe ci biir liggéey bi wane na wane na ko ndax lu ci waaye wéeru jàpp nga ne liggéey bi yaa ko yor bu sooxee ci sa loxo rek liggéey bi sooxe na loolu nag mooy yéene liggéey bi dem ñëpp bokk am ndam loolu mooy parce bi nga xam ne mooy feeñ ci ni ni ni ngeen ngeen di doxee waaye nag da ngeen a jékk njàkk muy sëriñ bi xam ne moom benn par par kenn ku nekk xam na laaj sa xol ak li ngay liggéey la yéen bi saa sam di wax ne keroog xasatu badar malaaka yi dañoo wàcc di bind marati marat marat martaba nit ñi ñu ne diw de mi ngi xare waaye bëgg àddina rek a tax muy xare diw mii di mi ngi xare waaye bëgg bëgg ñu ne jàmbaar rek muy tax xare diw di mi xare waaye bëgg alal rek a tax muy xare kii de bëgg ñu ne jàmbaar rek kii itam ñu ne bëgg lii bëgg lii bëgg lii bëgg lii moo waaw waaye sëriñ bi itam liggéey bi noonu la ci doxee du jaawale ji fi kenn kenn waaw moom daal nit la koo xam ne mu naan wax man daal bu ne ma sant sant leen law bi bu dee ma xar xar benn law bi law bi mooy yàlla man daal ndab lu waay ndab lu waay dékk rek ma ko kon ndab li muy pësteef bi noo jëflante ak moom rek mu jëflante moo doon bari bari nag kon kon yaa ngi bokk sa yaa ngi sa sa def sa defukaay ñii seen i xol rëy na ñii seen xol tuuti na waaye dañ seexee rek ba dégg ko ndab lu réere ndax ñun ñi fi nekk am na ñoo xam ne xëy na seen maam defoon na dara am ñoo xam ne seen maam dafa woon dara am ñoo xam ne sax xëy na ci ñoom la tàmbalee waaye nañu fas yéen daal liñ ci liggéey te xam ne lu na xaj na ci nañ ci fasaale maam yi nga xam ne ñoo jiitu woon maam yi nga xam ne xamuñu woon kuy sëñ bi ak ñi nga xam ne fekkiwuñ sax jamono bari nañ ci fas yéen dugal ñëpp te xam ne xaj nañ ci waaw na yaatu na yaatu ni i jaatu ndax sëñ bi sëñ bi sëñ bi xajoona waaw waaw da yéen jaatu waaw waxuma la ñi nga xam ne dañoo jiitu waaye suñu doom yi ñëw ëllëg nañ fasaale yu doon ay taalibe te fas yéen liggéey sëriñ Tuubaa lépp xañ na ci maanaam bu ñu xat daal bu ñu xat bu ñu xat suñ tubaa xatul waaw nañ itti ju kawe nañ nañ gën a kawe suñu itti euh, li sëñ li sëñ li sëriñ bi daan wax te yéen doon ko yéen saa saa mu xam ne bu toogee balaa balaa jóg ne di sant ni ci itti ju kawe la yuhibbu ma ay umur wa yakrahu saf safa yàlla dafa bañ lool di ko euh, itti ju suufe suñu itti daa iman rek nay kawe nañ ko royee ci moom sëñ bi ci yéen la ko royee nañ ko royee ci moom ko mas toog nit ñi rek dañ leen dénk ci itte ngeen xam ne waaye ci am itte ci waaye am ci itte nga ko amee waaw yu kawee lu waaye am ci ci nga ko amee fexe ba rek it itte moom boobu sëriñ gën di jëm te dimbali ko sëñ bi dimbali ko sëñ bi si di jëm kaw ñu àndal moom li euh, sëñ ndox day day gàttandoo waaw lay si itte moom da da da rek ba suñu itte kawee buñ ngottu mukk ndax gis nga sëriñ bi kat ni mu jëflante ak boromam waxtu wax ak moom rek yaa malikal mulki yaa man jël an xawadin bu jëlee ba teg ko ca bu dóoree bal rek dana ma dana doy sëkk yaa malikal mulki yaa man jël an xawadin irham ba teg lu mën ko fa teg gis nga ci xiram ci itam ju kayam a la wax am na ay njaboot am na ay taalibi am jullit ñaa ngi fi xam na lépp ndax xam daraje kii mi waxal ñu nañ xam daraje kii liggéeyal nañ ko sëf rek ba mu gis ngeen nañ yóbbaale ñëpp ñi jiitu ak ñi ñëw ëllëg yàlla na si mën defal tawféex barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah